ak ay xaalis moom jar na taxaw quand même. oui li li mu wax noonu loolu looloo am ñun xam nga OFOR structure de solution lañu donc ñun techniquement am nañ solution yi maintenant lan moo koy def koppar bi koy def ñu ngi déglu ku tedd ki sëriñ bi ak président de la république heure bu ñu joxee ndigal rek. am nañu ay solution soxla ndigal maanaam moom constaté nañ ko nii dañuy pet lu ci mu ndox. muy jaxasoo sax ndab bi. loolu kay ah, techniciens yi war nañ cee gaaw jublu ci. soxla na ndigal tey réseau Touba bi ku ko bëggoon defaraat minimum di nga ci def trois cent milliards minimum réseau bi en tout cas étude bi ñu am réseau Touba bi tey soo ko bëggee def mu nem nekk même réseau fonctionnel standard fi ñu koy trouver dans les grandes villes minimum di nga ci def trois cent milliards maintenant li si des comme ni ma la ko expliqué ndigalu sëñ bi la ñuy xaar. moom xam na li may wax ak ndigalu <laughs> président. mi ngi leen di la waaye la bala ah, parce que ah kon lii dina gaaw a saafara am. <laughs> non non sëñ bi sëñ bi wax na ci ndox mi ba pare. moom nee na bu université bi jàllee ndox mooy priorité kon sëñ bi buñ ko jiitu nañ ko nañ bàyyi rek université bi alhamdulilah lee mu jeex bu jeexee xëy na dinaa wax ci ndox mi mais li wax dëgg la am na solution. am na solution te population yi quand même mérité nañu appliquer solution yooyu pour que ñëpp mën am ndox problème bi jeex ñu jàll ci leneen mhm. parce que am na benn projet boo xamante ni yàgg nañ ci xalaat xam nga ñu ngi doon wax ay waxul ak de guerre booy wax ay lu gasaan ak yooyu loolu ofoon nekku ci woon sa prédécesseur seur yi doon ci liggéey yooyu ay option yu bëri la donc ndox mi mun na jógee lac de Guiers jaar Touba dem mun na jóge Sadio dem ñëw ba Touba yooyu yëpp les solutions sont déjà la mhm. am nañ sax ñoo xamante ne sont les dans les dispositions même pour réaliser ko mais projet de ces grandes envergure par exemple tey réalisation réseau Touba soo ko bëggee def ça sera le plus grand projet de l'hydraulique rurale depuis Sénégal ba mu amee ba tey suñ jëlee décision def ko ça sera le plus grand projet de l'hydraulique rurale ñu def ko ci biir Sénégal hmm. loolu dafa laajte waxtaan dafa laajte dajale koppar yu bëri dafa laajte diggante président ak ku tedd gi ñu waxtaan ñun ay ndaw lañ rek suñu ko waxee la solution est la en attendant li nga wax mooy am nañu prêt pour financer ko. voilà donc il y a des bailleurs qui sont prêts pour financer le projet. les bailleurs. ah oui oui. et puis est-ce que on peut parler sax Touba du rural parce que boo mooy deuxième grande ville bu Sénégal quand même ville la war a nekk. a en termes de décentralisation ça considère comme une ville bon ça c'est au niveau du statut. oui waaw donc ça c'est au niveau du Mhm. mais li wér moo di ne Touba mu projet bi gën a rëy ci Sénégal depuis les indépendances ci fànn googu c'est normal parce que Touba aussi à par Dakar moo ëpp ci Sénégal. c'est ça mhm. donc loolu aussi c'est